Ousmane Sonko dañoo daal di alku moom Moustapha Diakhaté mu tontu ko ne je l'ai dit parce qu'il y a eu des événements tragiques maanaam dama ko euh, wax ndaxte am na fi ay événements maanaam ay jaar-jaar yu métti yoo xamante ne amoon na fi ba tax am ñu si ñàkk seen i bakkan am ñoo xamante ne yàqule nañ si maanaam seen i bagage ñu yàqu si waaye itam destruction des biens ak saccage yooyu yëpp mu am si mu yokk si ne nous avons élu un président de la République et un premier ministre s'est installé jusqu'à euh, qui est allé jusqu'à déclarer euh, qu'il a le droit d'ordonner l'arrestation de quelqu'un à sa guise maanaam moom mu Moustapha Diakhaté mu yokk ci ne dañoo fal ab premier ab président ak premier ministre boo xamante ne dem na sax bay wax naan am na droit ngir mu daal di joxe ndigal nañu jàpp diw wala ñu daal di euh, bàyyi euh, diw te loole jàpp na ne moom dafa daal di euh, grave mu ne kon je le premier à critiquer Ousmane euh, Sonko moom mu ne moom moo njëkk kon critiquer ki nga xam te ne moom moo di Ousmane Sonko moom euh, avocat bi euh, mu yokkal ko si ne ndax. Euh, dégg nga maanaam avez-vous entendu Sonko dire que ceux qui ont pour la personne des voleurs mu ne ko ndax dégg nga Ousmane Sonko wax benn yoon ne ñi nga xam ne ñoom ñoo daal di votel euh, ñii di waa APR ay sàcckat lañu Moustapha Diakhaté ne ko bien sûr waaw je l'ai entendu dégg naa ko mais je n'ai pas appelé à des violences ou à combat mortel maanaam dégg naa ko waaye loole taxul ma woote benn yoon ngir lu jëm ci ay violence wala bokk ay xeex ak yi ne mel mu ne samay kàddu euh, conduirul benn taxul benn yoon ba am ku si ñàkk bakkanam euh, ci lu ëpp daanaka ci quatre vingt jeunes maanaam juróom-ñetti fukki ndaw ñoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan waaye itam ak lu jëm ci li nga xam ne ay destruction de commerce ou de station service ak yeneen yi nga xamante ne yëpp moom moo si daal di xew kon lilee di ka weccoo yi nga xamante ne moom moo am foofu ca biir waay ma taxaw ak euh, sama benn confrère boo xamante ne moom euh, ca saal ba la daal di jóge moom itam ma daal di ko euh, paas li nga xamante ne moom moo di parole bi ngir mu leeral ci li nga xamante ne moom moo di ci weccoo yooyee doxoon ci diggante moom Moustapha Diakhaté juge bi procureur ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di avocat yi nekk ci biir saal boobule. waaw di la di la jaajëfal bu baax a baax ci leeral yi nga xam ne nag euh, jot nga ko def par rapport ak euh, résumé bi nga xam ne nag mooy affaire Ousmane euh, Moustapha Diakhaté daanaka jamono bii ñi nekk nii da saal ba jóge waaye dafa mel ni procès diggante waa APR la mujje ak waa Pastef wala coalition Benno Bokk Yaakaar bi fi nekkoon ak waa Pastef ndax que ça soit maître El Hadj Diouf wala ki nga xam ne moom maître Amadou Sall Euh, daanaka ci kaddu yi nga xam ne Moustapha Diakhaté wax na ko dañuy daal di wàcc ba jamono 2021 di joxe exemple par rapport ak euh, dëkk bi ni mu meloon ni Ousmane Sonko moom moo fi taxawoon di wax ay gatsa gatsa euh, Ousmane Sonko moo fi taxawoon di daal di def euh, li nga xam ne nag moom mooy manifestation ba mu am ci ay gune yi nga xam ne nag euh, décédé dee nañ ci waaye tam euh, Ousmane Sonko moom moo daal di am askan bi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci internet bi ku ku waay wax ñu daal di la saaga wala mu ne mu ne kii nga xam nag moom mooy euh, maître El Hadj Diouf ah, nee na Ousmane Sonko euh, moom moo am askan bi nga xam ne nag euh, mooy dañuy woote ay homme politique. walla maanaam ndaw yi nga xam ne nag ñu ngi jàng politique te amuñu benn base amuñu benn formation moo tax xale yi lu leen neex la ñuy wax boo demee ba déglu moment bii nga xam ne nag ñoom ñoo la ñu nekk di wax da ngay yaakaar ni c'est juste un débat entre des hommes politiques. maanaam la opposition ak euh, ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo fi euh, nekkoon maanaam le pouvoir d'avant ak opposition bi ndax génn nañ ci cadre kaddu bi fu mu toll nii sax génn génn nañ ci cadre kaddu ndax Moustapha Diakhaté dafa wax ni Euh, moom lu tax mu daal di yëkkati kaddu yi moom dafa gis ni Ousmane Sonko ak lépp li nga xam ne def jot na ko def fii nii ak waa Pastef ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci parti bi ndax parti bi dafa warul exister sax pour commencer euh, mu jàpp ni lépp li nga xam voilà ñoom ñoom daal seen seen problème bi yëpp dafa mel ni lépp li nga xam ne si defoon na ko fii nii ñoom ànduñu ci maanaam même bu dee am na manifestation yi fi amoon mu am ci ñi nga xam ne teg nañ leen loxo. que ça soit le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye bokk ci ñi tegoon loxo waaye nag euh, le premier ministre aujourd'hui Ousmane Sonko tam bokk na ci ñi nga xam ne nag après teg nañ leen loxo ba amnistie daal di leen setal waaye ñoom boo leen déggee tey jii nii ci baar bi di wax dafa mel ni euh, amnistie bi sax ànduñu ci ànduñu existence su parti Pastef waaye tam ànduñu ci li nga xam ne moom mooy le choix de certains des sénégalais ñi nga xam ne dañoo génn daal di wooteel Pastef parce que yaa ngi ko doon wax sànq ni ci. kaddu yi nga xam ne euh, moom la ko àttekat bi wax ne ko wax nga ni askan bu alaxu ñoom ñoo daal di woote waa Pastef est-ce que yow ci euh, ca kaddu yi nii xam nga ñan ngay daal di lancer message wala dafa am benn entité maanaam waa Pastef rek nga doon waxal mu ne moom xamul ñu wooteel Pastef ak ñu ko xa ñu ko woteewul moom daal di yëkkati kaddu gi rek jëmale ko ci ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo wootee Pastef parce que jàpp na ni. Euh, fu mu toll nii ku dem ba gis nataalu Ousmane Sonko maanaam photo Ousmane Sonko ku ko dem gis ci urne bi nga daal di jël euh, bulletin Ousmane Sonko def ko ci enveloppe euh, daal di voté pour waa Pastef mën a am li nga xam ne moom mooy majorité fii nii moom jàpp na ni yow daan daanaka dafa am lu la dugg wala dafa. waaw waaw jugé wul nit ki normal parce que déjà on se rappelle dañuy dañuy delluwaat ci émission bi sax bi mu koy wax. Euh, anim ki nga xam ne moom mooy suñu confrère bi ci 7TV euh, set politique mooy émission bi nga xam ne nag dañ koy def ci affaire politique. kooku wax na ko ne ay est-ce que doo jéem a daf ko poussé woon à ce que muy waxee alaxu waxoon na ko ni mu jéem a rafetal kaddu bi ci manière parce que nga koy relancer pour mu rectifier wu. dañoo gis ni mu ne ko Mamadou li la wax parce que gaalu dof gaalu dof du teer même bu fekkee dina teer nag fu fu fu muy teere du neex euh, askan bi. maanaam ci kàddu yooyu noonu dafa mel ni il insiste sur ce moo tax euh, ñu jàpp ni c'est plus que euh, un procès entre euh, Ousmane Sonko mi fi nekkoon opposant ak ki nga xam ne nag moom mooy Moustapha Diakhaté nekk ci Benno Bokk Yaakaar nekk cest à jamono bi ni génnu fa mais dañuy jàpp ni on nous renvoie juste ci air boobu noonu mu Moustapha Diakhaté mi fi nekkoon euh, ci euh, benn Bokk Yaakaar mu Moustapha Diakhaté mi fi amoon ay nekkoon APR Moustapha Diakhaté mi amoon responsabilité ci parti Pastef mi nga xam ne nag demoon na sax ba benn jamono jël na kaddu wax ni euh, le président de la république wala wax ki nga xam ne mooy la directeur des impôts et domaines euh, da jamono boobu mooy euh, non non kii la woon sax amadu euh, amadu Ba parce que wax na ko carrément ci benn émission ni Amadou Ba dafa war a jël ay matuwaayam pour dàq Ousmane Sonko ci impôts et domaines. donc wala avant ñu koy radier la te ñu ñoo gis ni après radiation bi moom moo ci ñoo topp après radiation bi tam. gis nañu ni pour dissoudre parti Pastef Moustapha Diakhaté noppiwul benn yoon ci combat boobu noonu wax na ci ba finalement. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk passif li leen dal dal lañ ci diggante boobu noonu waaye bu ñu demee ba ki nga xam ne moom mooy le président de la république Macky Sall jaal jël ndogal yóbbu affaire bi ci fi nga xam ne moom mooy euh, assemblée nationale fi nga xam ne fa la ñu war a wotee loi yëpp ñu daal di wotee loi d'amnistie ñu jàpp ni lépp li nga xam ne am na ci jamono boobu dañ koy niinal euh, ba tey ji nii ñun mun nañu jàpp ni ku dégg maître El Hadj Diouf nu muy waxee dégg avocat maître Amadou Sall nu muy waxee dégg ki nga xam ne moom mooy seen client yi Euh, client bi Moustapha Diakhaté ni muy waxee daanaka ñoom amnistie bi neexu leen waaye existence parti Pastef bi sax neexu leen waaye tam askan bi nga xam ne nag euh, dem nañu ba woote euh, que ça soit élection présidentielle 2024 ci mars bi wala législative bi nga xam ne nag moom la ñuy jógee def nii le 17 bii nii neexu leen ñu jàpp ni képp ki nga xam ne yëkkati nga sa sa xob jëmale ko ci waa Pastef daanaka yow àndoo ak sa sago suñu mënee résumer parce que ñoom ci loolu lañ nekk di jël yeneen exemple di ko daal di euh, mën a justifier par rapport ak euh, li nga xam ne nag moom mooy kaddu Moustapha Diakhaté daanaka demoon nañ sax ba dégg maître El Hadj Diouf keroog biñ koy def mandat dépôt nee na xëy na askan wi ñoom ñoo déggul wolof parce que ñoom euh, alaxu moom jàppul ni loolu kaddu la bi nga xam ne nag dafa daal di kaddu bu ñagas la donc loolu yëpp ça nous renvoie à ce que ñu mën a jàpp ni procès bi nii parce que ñu bëri ci biir salle bi ma jógee sax ñu ngi xuntu di wax ni lii nii warul mun a am temps bi nga xam ne nag moom la ñuy jox parole parce que boo amee ay avocat yu bëri avocat yi ku ci nekk bëgg a taxaw di wax te ci biir salle bi mu am yeneen audience ñuy xaar daanaka ñi nga xam ne assistance bi demoon dem nañ ba benn moment euh, dañoo dañoo sonn di déglu ki nga xam ne moom mooy maître El Hadj Diouf wala metre Amadou Sall wala ci limu avocat yi nga xam ne ñoo taxaw tey jii nii ci baar bi di défendre Moustapha Diakhaté jamono bu may génn ci salle bi nii euh, avocat yi ñoom ñoo doon wax bu ñu waxee ñu jox kaddu gi Euh, Moustapha Diakhaté pour mu daal di développer euh, kaddu yi nga xam ne nag jëmale na ko ci ñi wootee Pastef waaye nag euh, dafa mel ni regretté wul benn yoon waaye lu mu bëgg a gëmloo askan bi mooy alaxu bi nga xam ne nag jàpp nañu ni saaga la loolu du saaga moom dafa jàpp ni ñëpp ñi nga xam ne nag def voté nañu pour waa Pastef defal nañu seen bopp li nga xam ne nag war na mun a yóbbee Sénégal ci guuta te ñoom seen bopp du ci génn en résumé ci si li ma mën a wax par rapport ak euh, procès bi lii la ñu jàpp ne xëy na fii ba ci kanam dinañ mën a am euh, li nga xam ne nag euh, moom mooy verdict bi parce que fu mu toll nii nag ci saal bi nag laa la wax nii salle bi dafa fees salle salle numéro un la ci biir dafa fees bu ñu daal di ubbi ñaari buntu yi ñi ñi nga xam ne ñu ñoo nekk ci terrain ci véranda bi sax ñu ngi dégg à travers li nga xam ne moom mooy micro bi wala baaf li Moustapha Diakhaté di wax ak avocat yi fu mu toll nii mën naa la wax ni euh, ñëpp ñi nga xam ne nag ñu ngi ci salle bi ñu si bëri ànduñu ci temps temps bi euh, li nga xam bi li xëy na bëriwul. non dañoo jàpp ni sax peut-être une heure de temps la mën a mën a durer parce que déjà 11h la commencé taxaw ñu bëre yaakaar ni 11h ba midi nag war nañ mun a génn ci dossier bi dem ci yeneen dossier parce que maa ngi la doon wax ni bëri na ay dossiers yi nga xam ne nag dañu leen war a vidé tey jii nii euh, xëy na. comme affaire politique la comme ni ma la ko waxee sànq ni dem na ba jël ampleur politique te ku dem ba am ay avocat yu bëri bëgg ku nekk jël temps pour la yàlla xëy na moo tax euh, procès bii nii gën a gudd waaye fii ba ci kanam dinañ mën a xam euh, ki nga xam ne moom mooy président bi ban euh, lan la bëgg lan la war a jàpp par rapport ak verdict bi gis nañu tam Moustapha Diakhaté bi muy commencé wax yaa ngi doon ñëw ci loolu mooy ses premières paroles bi mu ñëwee ñu lii mooy procès verbal bi nga xam ne nag moom lañ fi am ñu ne lii ak lii ak lii nga jot a wax est-ce que yow tam mën nga ñu expliquer carrément pour ñu bañ a déformer say kaddu yi nga wax wala nga jàpp ni dañ la sosal ndax lii la ñu wax ñëwal ci ay kaddu mu gën a leer ñu mën ko dégg donc foofu tam ñëw na ci mais moom euh, jusqu'à présent wax euh, néewul maanaam bañul li nga xam ne moom la jot a wax ci askan bu alaxu waaye tam dañ ma baal ci kaddu yi parce que il faut ñu leeral kaddu yi pour ñii nga xam ne ñoom ñoo ñuy ñoo ñuy seetaan ñu mën a xam Moustapha Diakhaté ci yan kaddu lañ koy attee ji nii moo tax ngeen baal ñu ci kaddu yi moo tax ñu leen di répété kaddu yi pour ngeen mën a comprendre ak beneen nag mooy euh, gaalu dof du teer euh, ndax euh, dafa jàpp ni ñëpp ñi nga xam ne nag ñoom ñoo woote waa Pastef ñoom ci gaal bu ñu nekk mooy gaalu dof donc boo waxee loolu dafay mel ni Euh, ñëpp ñu leen woteel tam dof la ay dof lañu xëy na tam euh, bon ci jargon bi mu koy def voilà euh, parce que nee na jox ñii <laughs> li nga xam ne moom mooy non seulement major présidence bi la njëkk a wax expliqué nga jox leen 54 pour cent loolu moom jàppul ni ñoom ñu ànd ak seen sago ñoo ko def de un de deux mu jàpp li nga xam nag moom mooy majorité bu ñu leen jox ni ci législative bi ñu génn nii avec 130 députés jàpp na ni nii ni ànduñu ak seen sago moo tax euh, ñu daal di euh, woteel euh, parti passif te ba mu koy wax dafa jàpp ni parti passif lépp li nga xam ne nag dal na sénégalais yi. yaa ngi ko doon wax sànq ni ñi nga xam ne euh, jot nañu ñàkk seen doom yi Pastef moo leen ko teg voilà ñi nga xam ne nag jot jot nañu ñàkk seen millions yi waa Pastef ñoo leen ko teg ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne nag euh, jot na xew ci jamono 2021 ba 2024 moo tax mu mënul comprendre ah, askan bi jóg dem di sandil seen xob bi pour euh, waa Pastef xam naa ma jox la nga daal di wëyal tuuti après ñu ñëwaat. benn question mooy ndax peut-être yow mi nga xam te ne amaana dem nga même bu fekkee ne duggoo ba si biir a biir salle bi mais. ndax gis nga fa ndax gis nga kon présence ñi nga xam ne ses frères de parti euh, ndax ñëw nañu euh, daal di ko jàppal tànk wala euh, daal di ko maanaam yokk doole ci li nga xam te moo di ci procès bi lee moom Moustapha Diakhaté ses frères de parti ndax gis nga leen. waa maa ko doon wax sànq ñun fu ñu taxawoon dañuy daal di dañuy gis ñi toog ci biir salle bi amaana ñoom angle bu ñu nekk tam mun mënuñu leen gistam tam parce wax naa la nii ni dañoo bëri ba deux portes yëpp dañ ko ubbi non seulement mais ci couloir bi tam maanaam ci ci ci allée bi euh, ale bi yëpp dañ fa bàyyi ay nit taxaw ba benn benn benn limite lañ leen may mais que ça soit couloir bi euh, que ça soit ci biir salle bi ndax nit ñi dañoo taxaw ba ñu déborder chaise yi dañoo fees mais may nañu quelque personnes ñu taxaw ci rebord bi maanaam ci angle yi yëpp am na que ça soit des des des journalistes yi taxaw ci seen place parce que banc yi ñu réservé journalistes itam fees na ba finalement boo tijjee buntu bu ñu bàyyil pour journalistes yi da ngay ñëw taxaw ci buntu bi wala nga jéem a xool naka ngay euh, fexe ba déglu waaye tam salle bi ki ma fa gis njàpp ni moom même bu fekkee tey jii ni taxawaayu euh, avocat la ma jàpp ni moom ak Moustapha Diakhaté ñoom ñoo bokkoon parti mooy euh, maître Amadou sal maître Amadou Sall laa ràññee. ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkoon euh, ñoom ñoo nekk APR wala ñoo nekkoon APR wala ñoom ñoo nekk ci parti Benno euh, coalition benn Bokk Yaakaar wala euh, voilà parti APR donc maître Amadou Sall nag moom laa fa remarqué amaana tam ñeen itam ñëw nañu mais voilà dañoo bëre ñu confirmer ni infirmer ni ñoom seen présence xëy na ki nga xam ne nag moom mooy procès bu génnee bu jeexee ba Moustapha maître El Hadj Diouf génn xëy na mun nañ leen gis seen alentour waaye nag Kader mun nañ signaler ni Kader nag moom ñëw na Kader di euh, chroniqueur bu Sen TV parce que moom tam amoon na euh, ci ginnaaw am na ay ay kaddu yi nga xam ne toppoon nañ ko waaye nag euh, bu ñu ko daal di defee daa depo mu ñëw jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy attakat bi may na ko liberté moom tam ñëw na fii nii pour fëddale coloré boobu noonu ndax ñi ngi rappelé ni jamono boobu noonu Maître El Hadji Diouf moom moo nekkoon avocat maître Amadou Sall fu mu toll nii tam gis nañu c'est le c'est le bloc boobu noonu moom mooy défendre ñi fi nekkoon ci waa Benno Bokk Yaakaar wala euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci APR donc euh, fii ba ci kanam dinañ mën a xam. Euh, procès bi euh, naka euh, la naka la bindoo maanaam verdict bi voilà fu muy mujjee verdict bi nga xam ne nag moom la président bi war a jël wala soit ñu renvoyé ko wala mu am li nga xam ne nag dina ci prononcé waaye fii ba ci kanam peut-être ñu ngi doon wax sànq ba tey ni dans trente minutes dans une heure mais gis nañu ni at bu ñu joxoon kii nii maanaam waxtu bu ñu yaakaaroon ni du ko def daanaka dépassé na ko fu mu toll nii maa ngi la doon signalé ni am na tam ñi nga xam ne nag du procès bi moo leen indi waaye seen euh, mbokk yi ah ñoom ñoo nekk euh, ñoom la ñu war a àtte tey ji ni ñoom finalement boo bu ñu demee ba génn ci saal bi ci couloir bi sax da dégg nu ñuy xunte wax ni ñoom waa euh, dafa yàgg du lii rek moom mooy affaire bi nga xam ne nag euh, war nañ ko mën a juger la ñu war a gaaw a juger lii nii ñu jàll jàll ci leneen. ndax loolu itam peut-être euh, xam naa ne yaa ngi xaw a sonn mais ndax loolu itam wanewul ne peut-être genre dossier yu yenn nit ñi nga xam te ne amaana njort na ne dossier yi mën a yàgg ndax jërul ñu koy def en audition spéciale maanaam bu ñu leen di jour bu ñu leen di càmbar seen seen dossier ñu jël seen dossier ñoom képp bañ si boole ñeneen ñi parce que ñeneen ñi taxaw di xaar itam ci lu yàgg ay une heure deux heures trois heures de temps ci dossier boo xam ne xamoo kañ lay jeex euh, fekk ne am na ñeneen ñu toog ñu war leen àtte loolu wonewul tey ndax war nañu jéem a daal di defaraat euh, li nga xam ne moo di méthode boobu bés bu ñu demee bay àtte na ñi ñenn nit ñi nga xam te ne jàpp nañ seen dossier du gaaw ñu jël ko en audience spéciale. waaw li nga wax ni xalaat la xalaat bu rafet la sax xalaat bu rafet la mais Sénégal moo bindoo euh, de telle sorte que lépp li waay mën a li nga xam ne moom mooy solution ci beneen côté bi dañ koy jàngatee leneen tey jii nii imaginez vous Moustapha Diakhaté homme politique la mu fës loolu ci li nga xam ne moom mooy langue politique ñu daal di jël euh, li nga xam ne moom mooy procès am bañ mu bokk ci euh, procès bi nga xam ne nag euh, ci la war a mën a taxaw ak ñeeni ci askan bi ndax bi mooy dugg yaa yaakaar naa ni ëpp na six ou sept personnes yi nga xam ne nag ñu ngi toog pour ñu mën leen atte ëpp na loolu sax Euh, bu ñu daal di def procès pour Moustapha Diakhaté donc yaakaar naa ne c'est des hommes politiques ah ñoom tam dinañu mën a génn wax ci euh, wax leneen li nga xam ne nag bokkul ak gis-gis askan bi li nga wax ni mën nañ ko def parce que pour bañ loor lor ñi nga xam ne tam euh, xëy na tey jii nii parce que juge tam dañoo am heure bu ñu wàcc donc bu ñu demee ba heure boobu dépa ñu dépassé ko te mu am ñi nga xam ne war nañ taxaw tey jii nii ci flagrant délit taxaw ñu dañ koy renvoyé ñoom dañuy mujjee dellu ci kaso ba li nga wax ni mun na mun nañu xool naka la ñuy mënee organiser de telle sorte que des hommes politiques wala ñi nga xam ne nag seen affaire laal nag politique ñu gis ni xëy na c'est des